wax dëgg yàlla lii nga xam ne moo am fii tey ci hôtel bii rek ci kanam tuuti c'est Katia des na tuuti ci kanam tuuti bu ku fi ñëwul lambraw la looy wax ni maa la wax lii kon keremu làmb ñoo fi daje tey dama ne la da wolof jaay dem ne naa eh. mënaata xam la ci dégg ba moo mooy nan ba ca ban ba koo kër yi boo bëggee gis na kër yi dama ne yow des na ci gaal lël sa sa sang Maxime Bergane ngi nii Basirou Babo ngi nii Ndiouga Dia ngi nii Ndiouga Dia nag duma ko man waaye Ndiouga Dia papaam ci ñi jëkk a tëgg lamb ci la bokk hmm. Abdou Abdou Karim Dia hmm. mas nga xam naa ko koo koy jur kii kii servir Sénégal hmm. def ci Sénégal li mu war ba pare ba ba ba retraité mais ba mu xamee ne Ndiouga Ndiaye rek tappaleeg ma ñëw am na daa rocceeku taxawa ne ne moom ko am ful ak fayda la kee nag mooy Pape Diagne borom saxaaf xam naa ne ah. des na tuuti xam naa du ñàkk nga jël ñëpp mm-hmm. Mm-hmm. waaye daal li wér te wér mooy Maxime Bergane xam naa mën naa wax ci ñëpp mm-hmm. maa ngi lay déglu say question tey baaxum bi nga bi waa làmb wootee tey commencé gul mais soo xoolee daanaka xaaju làmb ñu ëpp valeur ci làmb ñëpp ñëw fii tey crème làmb tey ci ñi nga xam ne ñoom nënk làmb crème lamb ci ñi nga xam ne ñuy jëy ñooy defar lamb crème lamb nga xam ne tey bu lamb tëggee gisoo fa bopp yooya mhm. doo xam ne làmb am na ñoo fi daje tey mhm. li na commencé ci li nga xam ne que li ñu wax VIP mhm. ba ci xale yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ak xale yi nga xam ne sax dañoo bay te ñëwaguñu ñii di bay mboq ñii di bay dugub ñii di bay ñebbe ñii di bay euh, euh, naajo ñii di bay euh, ñëpp ànd nañoo ki nga xam ne kii mooy Euh, Malick Ngom mi nga xam ne bi ah Malick la xam bu ñu ko waxee ñun jullit war nañoo xam koy Malick ndax ngirum Malick ci la ñuy jule xam nga ne xam nga ne fii tey bala ñu fay génn mën nañ fee taxaw làmb ndax mbër a ngi fi promoteur a ngi fi menaceur a ngi fi waaw man de xam naa ne yàlla naa bokk ci ñi ma mën a jox avance rek xam naa ne bu ma amee su mënee jëlee avance moom dina baax ci man maa la ko wax man kay loolu la xam naa ne promoteurs yi moom. fii moom ba nañ fay jóge du ñàkk ñu gis benn kom combat bu ñor ba ñaar ba ñett ba ñeent te jàpp bu ñu waxtaan ak ñii fi ne. ñu xam ne ñoo mënul làmb. waaw baaxam kuy sa candidat. candidat yi fan. ci ci nga xam ne mooy li ñu jëm. man fan laa ñëwee furu ci ñu nga xam ne ñi moom la àdduna laaj. mooy ñan Malick. ñii man Malick <laughs> yow itam. mooy tax dama bàyyi nag. looy conseil ministre bi. ministre bi dama ne la. Mm. ngi lay nuyu bu baax. madame la ministre nga dëkk ci gox boo xam ne bii goxu làmb la. Joal Fadiouth géej gi dafa yëngu bëx ba bëx siré si tàngal siré si siré génne ko yaa ngi ñuy tàngal neel tekk li ma lay wax nii na nga ci def remarque bu baax amul fenn géej yi baawaan di baw mm-hmm. ba mu des Joal Fadiouth boo demee Joal Fadiouth géej gi tekk la def ni deex siré saa ko téye say maam dañoo def loo xam ne lii ragaluñu woon defuñu lenn ñoo seede bu sin ku ma ndóopeen ci sëriñ Touba ci ak tubaab ya ba am li maam maa ngi lay nuyu bu baax monsieur le ministre kon daal ministre bi ragalul ah, bu ragalee ñu def ko dooru def ko lu metti doomu séréer bu ragalee lu ñu ko war a def <laughs> daf ne madame la ministre. Ah. mu ne ko madame la ministre. yaa ngi génn grammaire mu ne ko grammaire amu fi mën a dawa fi am maanaam ñun ñun ñu jubóo rek noonu lañ demee. ñëpp la daal. président Bassirou Babou maa ngi lay nuyu. Euh, Serigne Saliou maa ngi lay fay. tey daanaka say doom say rakk tey ñu daje nga ñëw teew fi teewaay bi lan la. waaw mooy teewaayu comme li may wax démb ak barki démb gunge rek. Mhm. teewaayu gunge samay doom samay rak samay jarbaat ñu jublu ci lii nga xam ne moom la ñu jublu muy fal Malick Ngom tey ci bis bi mhm. ñu fal ci Malick Ngom mu nekk président bu CNG. Mhm. mu jiite ci kanam ñu ànd ak moom xam ni liggéeykat la. moo lu waral moo waral sama teewaay fii. ma ànd nag ak samay rak ak sama doom. ànd ak Max Mbargane ku ne xam na ak sama diggante ak moom Pape Diagne sama doom la. njugoo baayam moo fi indi lig ba mu fi jógee lig amaatul. te ministre bi daa soxla lig moo tax ma forcé njugoo ni ko foog nga ñëw. lig lig dafa war a dellusiwaat. Mhm. ligg ak fédération ministre bi moo ko waxal boppam ni daf koo soxla. Mhm. kii dana ci xam dara. Mhm. ndax bàyyi moo ko yoroon. te ba mu fi jógee ba léegi kenn yoraatu ko. kayit yaa nga fa lépp nga fa. te yaakaar naa danaa ànd ak moom ba ca ministre ba. xamal ko ni kii moo yore que dossier dossier fédération ak ligue. moo fi nekkoon ak ak baayam. àndoon ak wee ngiraandooy wee ngiraandooy yàlla weddi na gaañu na barki démb. kon tey Ndiouga moo war a présenté ligue bu Kaber war war a présenté. fédération war a war a présenté menacé yi. Mm-hmm. li mu fi boole dafa bari bari dëgg kon. li ma leen waxoon rek man aw ma dara lu may def fii lu mënoon maa toog. Mhm. parce que sama rakk ak sama jarbaat ak sama doom dajaloon nañu ñëw nañu. Mhm. mënoon na maa toog yow yaa ngi bokk ci nun li nu bëgg loolu ngay bëgg li nu wut loolu ngay wut. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ba noppi nag sama doom. wërgan selu toll nii muy Baye Ndiaye Baye Alla njaay may coordonnateur wu Alburax lu fay taxaw ci sama loxo bii lay jaar. lu fay dem ci sama loxo bii lay jaar kon. bu ma yeboo ni li ma la wax rek man daal maa ngi gunge xale yi danaa gunge ak ñoom bu ñu duggee ci biir géej gi danaa ànd ak ñoom ba ci biir géej gi bu ñu ci teen bi danaa ànd ak ba ci ba ci biir bi du ma def gunge nit ba mu dugg sawara ma wàññi ko xalaatuma ko ci àdduna lu mu dugg rek danaa ci dugg maa ngi ànd ak ñoom ba bofu toppi vol ñaari jikko yoo xam ne moom nga gën a euh, ràññi ki nga xam ne mooy Malick nga xam ne bi muy ñëw di arbitré fi la la fekk waaw Malick xam-xam hmm. la am xam nga man nga arbitre te doo am xam-xamu arbitre. man mhm. nga bëre te doo am xam-xamu bëre. Mhm. mais Malick dafa am xam-xamu arbitre. Mhm. dafa am xam làmb. foo juddoo mu ni boof. foo yaroo mu ni boof. fa la làmb fa làmb boof. te dégg naa moo doon toog cumbukaayu tombe seen. tombe seen boof ñoom ñaar ñëpp boof la ñu dëkk. boof fa la làmb boof. kon bu ñëwee soxla lii. ñun ñëpp dañ cee war a jàpp ànd ceeg moom jox ko ko. ñaanal ko yàlla jàmm ak salaam li ci jublu. yàlla dimbali ko may ko ci lim ci jublu. jërëjëf. Pape Thialis maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay. ñu ngi lay fay di nuyu askanu làmb bi yëpp nuyu waa Sénégal yëpp. tey euh, jataay bi tey. waaw jotaay bi nag lu ko waral rencontre la rek. Mm-hmm. benn conférence de presse bu ñuy organiser. donc les acteurs de la lutte en général ñoo fi nekk donc si fànn bu mu nekk rek ñoom ñëpp ñu ngi fi daje. donc pour waxtaanee làmb xool aussi seen candidat buy Malick Ngom. benn point presse boo xam ne dañ ko koy dañ koy jagleel euh, public bi. pour ñu xam ñoom kan la ñuy jàppale si si si liñ jëm nii. tey soo doon conseillé. Euh, madame le ministre loo koy wax. waaw mais mu xool fu majorité bu nekk xam nga remise moom jarul ñu koy conseillé parce que je pense que moom équipe rek am na ñu koy conseillé des yoo xam ne xam ne xam ne ñoom li nga xam ne moom la état di doxee donc état li muy doxee mooy majorité tey aujourd'hui majorité fu mu nekk moom je pense que ni moom lay déglu et je pense que li mu gis nii c'est la majorité waaw du monde de la lutte en tant que promoteur de sa xel mi ngi ci Malick waaw effectivement ñun dañuy am coordonnateur koo xam ne moo ñu resté lépp ci làmb mooy suñu mag suñu mag si Margane donc moom lu mu ñu dugal rek ñu dugg ci lu mu ñu wax loolu la def donc moom bu choisir Malick Ngom rek ñun aussi moom la ñuy choisir donc bu fi teewee tamit moom bokkul ci lu ñu foog ñoo teew ci parce que mooy suñu lépp dañuy ñëw teewal Leewtoo donc moom sa moom rek mënoon a fi nekk mais dañuy ñëw accompagner ko et suñu choix si Malick Ngom la incha allah non dañuy dañuy waaxu ñu la. ba ba balaa ñee taxaw ñoom ñu dugal. bu di bëri kat maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. xam nga doomu aadama buñ ko dee moytu xel ma xel ma. doomu aadama. waaw léegi kan la ñu meetu. ko dee moytu xel maa tax de. doomu aadama fi meetu xel ma rek. nit moom bu ci xel jógee dara desati. <laughs> waaw li ngeen def ci xeetu xel la bokk waaw. commencé gu ñee ngeen commencé waaw maa ngi lay déglu. su loolu weesoo tey euh, ñu woote fi li nga xamante moom mooy ndaje mi ñëpp teew fi tey max jataay bi xol bi ak yëg-yëg bi. waa ni ma tax teew mooy li yëngal ñëpp ma yëngal rek. Mhm. le monde de la liit woote ñu toll ci mandat bu jeex ñu war a fal ku war a doon président du CNG. Mhm. waa axlu làmb dajaloo fi comme ni ko si waxee nga xam ne moom benn kàddu la am bañ àndee ba léegi loo wax mu ne max la ñuy déglu waaye 2017 2018 bureau am dalaan fees del waaye defe naa mën naa ne man dongo fa des man nag dama dul jàpp di bàyyi noonu la ma yàlla bindee man ci dëgg rek laay ànd ak nit ànd bu sincère lay ànd ak nit moom it muy ku yaru di ku neex àndal mhm. mais li fi dajale nit ñëpp nag li ma yëngal mooy mbër yi ma dégg yeneen sorte yoo xamante ne nii damay xalaat ne ñi ko def bàyyiwul xel ci li ñu def ménager boo àndul ak mbër ku muy àndal xaw ko de looloo ma yëkkati nag looloo tax ma jóg ñun mbëri la ñuy signeel kon seen i intérêt war a défendre dëgg la mbëri dañ leen daan tànnal tànnal ñu tey nag ñu ne ñu yéen tànn leen mbër yi nga xam ñun ñoom la ñuy signeel ne tànn nañ Malick Ngom waaw kon ñun koy ménager yi nga xam ne seen intéret la ñuy défendre. Mali rek lañ mën a àndal. moo tax ñun dañoo ñëw tey pour soutenir Mali Ngom ndax mbër yi ñu àndal. di leen signeel di défendre seen i intérêt ñoom Mali Ngom la ñu àndal. moo tax ñun ñu ànd ak Mali lii rek la amul leneen. tey su ma doon wax ci Mali kenn mooy Mali. baax yaru yiw jub jox ñëpp cër. Mhm. waxuma ko pour ne liñ koy fal la. Mhm. su meloon ne nit xëy na duma ma ko ŋàññi waaye duma ma baabal waaye xale bu yaroo ngi noonu. day régler làmb ba ci région yi am na ci làmb yi am Kaolack léeg-léeg bu làmb yay jeex ñooy ànd ñibbisi. te ñooñ dañuy tëgg ne ko ci wàllu tirage beeg ni muy demee ñëwal ànd ak assisté CRG bi noonu la leen di taxawoo. te bëri na ci tournoi de lutte yu bëri moom moo koy sobe. mbër muñ daan nga gis sa bopp xataraayu mu bañ ñu sanctionné la mu lëng la wax ak yow nga bàyyi. xale yi bul fexe ñu ragal la ndax ki lay ragal bu dee ba tolloog yow doole wala mu ëpp la doole ragal mais fexeel ñu ruus la ndax ruus moom ngay deyaale moo tax xale yi ruus nañ Malick ku mu ci lëng rek nga bàyyi bu làmb ji tëjee muy def ay tournoi maanaam jege leen kooku buñ ko dénkee làmb euh, dañ naan rek xandeer bu delloo ci suuf tukkiwul dafa ñibbi dëgg ah, waaw waaw ah. Fermax bu fekkee ministre bi na bu tànnee keneen ñun def nañ suñu choix. ñu xam ne moom lañ jiital mu tànn ki ko neex. Mm. ndax am na ci droit. waaye ñun Malick mooy suñu candidat. waaw loolu xanaa wax day jeex. jeex na tànn Malick la ñu àndal ñun. waaw pour mu leer. <laughs> Pape Diagne Saxaaf. borom borom Seras. lu wér Zal. <laughs> maa ngi lay nuyu di la ziar. <laughs> di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi. ñi jiite réew mi yàlla defal leen jàmm. di nuyu président ak premier ministre ak ministre des sports. di nuyu Sénégal yëpp. rawatina bis bi tey daje bi nga xam ne tey Baye Ndiaye moo ñu fi dajale. ñu ngi koy sant bu baax moom it di ko gërëm. di gërëm sama papa président Babou Mële. man wax naa ko sax jaru woon sax may ñëw. man lépp lu mu nekk suba ak ngoon ba bëccëg maa ngi ci. ndax. sama papa la sama kilifa la sama lépp la. Mhm. lu ma nekk su ne ma dugal ma dugg su nee ma génnal ma génn. Mhm. su ma baabu ne àndal ak Malick Ngom. Mhm. dama ko ne bala ngay pare li nga bëgg loolu laay def moo tax ñu ànd ak Malick Ngom. Euh, di ñaan yàlla ministre bi. mu jiital ko. jox ko seen CNG bi ndax ménager mbër. lay défendre te mbër yi ñoom ñoo ne Malick te ñun bu ñu yore suñu kayit di signé mbër yee tax ñuy signé. te it nag nit ki. su fekkee daf la jiital ne la defal nangam mhm. defe naa ne bu fekkee bëgg nga koo jàppale loolu ngay def Malick gi di nit ku neex a àndal mhm. nit ku baax te Sénégal yëpp wax du maa ko wax de mhm. monde bi yëpp ñoo ni Malick phénomène bi nga xam ne moom laa gisoon ci Sonko moom laa gis ci waaw phénomène Sonko laa gis ci moom de ndax Sonko dafa jug sénégalais yi ànd ak moom Malick daa jóg ñëpp ni Malick xar yi ni Malick nag yi ni Malick fas yi ni Malick ñëpp ni Malick <laughs> Malick daal xam naa ni yàlla na ko yàlla fal cat waaye réew mi bàgg nañu Malick waaw waaw ñi fi daje tey suñ jënd ci làmb lu ci des ñi fi daje moom mooy karamu làmb bu ñu génne ci làmb làmb jeex te it réew mi dafa naqaree wax mm. ndax sooy wax dëgg ñu ni dañ koy jox dara mm. fii amul kenn ñu jox dara ku fi ñëw yaa paasal sa bopp ñëw fii mm-hmm. te it làmb moo ñu fi indi mm-hmm. te intérêt làmb nag ñun ñëpp lool lañu bëgg bu seen mbër di fayee ko milliard mm-hmm. te dafa war a jeex tey ci réew mi euh, ministre bi fi nekk du ñoom boo leen xoolee xam ne ay liggéeykat lañu parce que li am ni tey mës am ci benn ministre dañ daan ñëw rek ni vote yi dañuy ñëw ministre bi mooy fal ku ko neex bu jëkk da nga daan xëy rek ministre bi ni fal naa diw tey biraam yi li ko fi indi mataar baa ko fi indi bi mu koy indi dañoo xëy rek yëg ni biraa la fi indi donc nag tey bu ministre bi toogee ne tànn leen yéen ki ngeen wóolu yëkkati ko jox ko CNG de lutte bi ma euh, fal ko malik Ngom ñun mooy suñu candidat moom la ñu àndal di ñaan yàlla suñu borom mu jiite CNG de lutte bi nit ku ne tey ji yaa am sa droit. Mhm. ànd ku la neex. démocratie la man nag lépp lu sama papa baabu mais ànd. Euh, Max Mbargane ànd ci. Uh-huh. prés euh, Ndiouga Dia mii ànd ci. Mhm. Pape Diagne Sera ci lam te Ndiouga mii. Mhm. day dellusiwaat ci lam parce que moom njariñu njariñu ménager yi la. muy Ndiouga Dia mii tey. papaam doon kenn ci làmb muy suñ papa maam Abdou Karim Dia. kon kooku tey ji bu nekkee ci làmb wàcc na kon Ndiouga dañ lay waxaat nag dellusiwaatal ci nu yàlla. Zal daal xool sedd na. jërëjëf nekk manager bu mag ma gis la nga xaw def benn recul bu ndaw ci wàllu làmb. waaw ñu ngi lay ñu ngi lay ziar bu baax. waaw nekk nekkoon ménager nekkoon ménager bon y' a y' cinq ans yoo xam ne je me suis retiré du monde de la lutte mais tey jii dama dama dama ñëw pour apporter mon soutien à mon jeune frère euh, Malick bi ñu bi ministre innové ni dafa bëgg. bàyyi monde de la lutte ñu choisir et Malick s'est présenté comme candidat ma ñëw pour soutenir sa candidature li tax may soutenir sa candidature mooy Malick daf ma fekk ci làmb bi mu ñëwee ci làmb en espace bu gaaw